d'accord euh, euh, euh madame CDCS dañ ko créer dans le but de défendre les consommateurs l'intérêt des consommateurs le droit des consommateurs ay jeunes ñoo dajaloo c'est-à-dire euh, LCIS luttons contre l'indiscipline euh, au Sénégal ñoo dajaloo créer li nga xamante ni moo di CDCS collectif pour la défense des consommateurs du Sénégal défendre consommateurs sénégalais moo ñu tax a jóg protéger leen mais aussi sensibiliser leen parce que comme j'ai l'habitude de la dire nit ki euh, soo soo soo su xamul luy droit wam du ko mën a kaas il faut que nga xam lii sa droit pour nga mën koo kaas donc on est prêt à sensibiliser les consommateurs à que ñu xam seen droit ak naka la ñu koy kaasee euh, nga ni ndax am nañu ay outils pour mën a défendre est-ce que vous êtes pour mën a défendre les consommateurs am nañu on est assez outillés je veux dire parce que on des jeunes des jeunes très intelligents des jeunes qui sont là dundu ak consommateurs yi nekk ay consommateurs xam li consommateur bi di daj xam li consommateur bi di dundu tax ñu taxaw tey bu ñu nee dañuy défendre ñuy sensibiliser c'est parce qu'on est outillé on est assez outillé on est assez intelligent et on sait de quoi nous sommes capables ak naka la ñuy def pour mën a défendre consommateurs yi li nekk Sénégal parce que ñun ñëpp xam nañu cherté dund bi ni mu demee c'est-à-dire actuellement Sénégal secteur yëpp am problème tous les secteurs souffrent on parle ñu ngi waxu oignon bi boobu ba tey mais électricité bi mu ngi fi dafa yokku euh, éleveurs yi ñu ngi jooy aliment bétail beeg aliment volaille bi lépp yokku tey saaku ngooñ bi doon jax 3000 3500 mi ngi ci 10 000 francs aliment volaille bi doon jar treize mille instant mi ngi ci dix neuf mille cest à lépp yokk amul secteur boo xamante ne ni fi mu nekk Sénégal am na jàmm tout le monde souffre donc CDCS dañu jóg pour dem vers les consommateurs waxtaan ak ñoom mais aussi dem vers les entreprises vers les fournisseurs pour négocier ak ñoom trouver des solutions pour au moins euh, euh satisfaire même bu ñu satisfaire à 100 pour cent le besoin des consommateurs au moins ñu atténuer ko tuuti